alxadiisu salaasuuna fanweereelu xadiis min kitaabil arbaciina annawawiyati min al axaadiisi saxiixati nabawiyati neena an abi Saclabata kunyala alxushaniyi hmm. euh, moom la siiwee nag kunyatoom bi hmm. turam nag hmm. li ci gën a siiw mooy jurthum ibni naashir jurthum doomi naashir radiyallahu anhu ànd wuute gu réeréy am na ci nan la tudd am na ñu ne jurthum ibn amr am na ñu ne shawma ibn jurthuma am na ñu ne jurthuma ibn nashij am na ñu ne sax jurhum waaye tur wi ci gën a siiw mooy jurthum ibn nashir dàkkantalam nag hmm. moo gën a siiw moom lañ ko xamee abu thaalaba hmm. alxushani yi hmm. saxaabi la ci saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa sallam fekkee na bayatu ridwan nga xam ne fa teewoon yëpp yàlla gërëm na leen laqad radiyallahu an almuminina id yubayi'unaka taxta alshajarati moo tax bu ñuy lim ñi gën ci saxaaba yi hmm. bu ñu waxee waa badr hmm. wax waa uxud hmm. waa bayatu ridwaan lañ cay teg am na cëru bokk fekkee bayatu ridwaan yonentu sallallahu alayhi wa jox na ko cët yow ma xaswati xaybara yónni na ko ci aw nitam ñoom ñëpp ñu nangul lislaam mm-hmm. jébbalu nangul yonentu sallallahu alayhi mm-hmm. xare na xaswatu xunaynin mm-hmm. ba nga xam ne moo am gannaaw makka wàcc na Shaam bokk na ci ñi daa toogaaleeg daan na toogaaleeg kaabul axbaar nga xam ne ab yahud la woon tuub te mbokkaloon lu bëri ci téere yu njëkk ya daan na génn ndeysaan guddi gu nekk xool di xalam ci mbindeefu yàlla yi ak ci yàlla suñ boroom bu dellu see sujootal yàlla ku bari woon lu muy julli guddi la yàlla teralee na ko sax ci julli la dee fay julli fay sujoot ci sujoot ga la ko sama borom jëlee te fekk doomam géntoon na ko mm-hmm. ba mu ñëwee fekk ko mu ngi julli nekk ci xanamu sujjoot mm-hmm. mu yëngal ko fekk faatu na mm-hmm. ñu ne mi ngi faatu ci xilaafaay Seydina Muawiyata am ñu ne déeret mi ngi faatu atum juróom-ñaar fukk ak juróom gannaaw gàddaay yonantu sallallahu alayhi wa ci ah, fani xilaafaay abdulmalik binu marwaan mm-hmm. abdulmalik binu marwaan mm-hmm. ñu ne ci jamono jooj la ah, faatu mm-hmm. yàlla dafay taral jaamam di dee fekk yaa ngi ci jaamu yàlla teraanga ju rëy la rawatina jaamu yàlla ju tol ni sujjóot ci ñooñ jamono sax yàlla am na ñum ci karaamaale loolu mm-hmm. ku mel ni cheikh kishk mm. rahmatullahi alayhi daf daa ñaan yàlla yàlla jël ko fekk mi ngi sujoot mm-hmm. bu su àjjuma mm. sangu préparé pour dem juma mm. fi muy jullee ñaari rakk di naafile ci biir këram ci sujoot la ko yàlla jële mm-hmm. te yàgg na koo ñaan jële nañ ci abu thaalabata an rasulillahi bu jëlee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama qaala mu ne inna allaha yàlla farada farataal na mooy waral na faraida ay farata Hmm. fardu hmm. mooy firi dog mooy hmm. yàlla dogal na maanaam wax na wax ju dog yoo xam ne daf caa dogu ne fokk ngeen eh, def ko looloy farata wax na ñaate yi juróom lañ luñ digle te dogu ca looloy farata luñ digle te àndut ak dogu looloy luñ sopp luñ tere te dogu ca mm. mooy lu xaraam mm-hmm. luñ tere te àndut ak dogu mm. mooy luñ sib mm-hmm. ak loo xam ne mm. boo defee baax na doo am bàkkaar mm-hmm. doo am yool soo bàyyee baax na doo am bàkkaar doo am yool ki naan ki ngay naan kafe suba teel loolay lu dagan inna allaha naka yàlla farata farataal na faraida doo wax faraidan nag ndax min al asmaa illati laa tansarifu ndax dafa ami siixatu muntahal jumooy fala tudayicuha ngel la bu leen ko sàkk bu leen ko sànk fala tudayicu fala kon nag faagi faawu kon la fala tudayicuha kon bu leen ko sànk bu wala bu leen leen sànq mm-hmm. ndax haa gi dafay dellu ci faraayod te mm-hmm. jamu la mm-hmm. inna allaha yàlla farada farataal farada farataal na faraayida ay farata falaa tudayicuuha bu leen leen sànq lu mel ni julli juróom lu mel ni azaka lu mel ni woor lu mel ni aj mel ni jokkuk bokk mm-hmm. lu mel ni baaxe mm-hmm. ay wayjur mm-hmm. ak farata yu bëree bari yoo xam ne mëneesu leen a takk yooyu yëpp nag na ngeen fexe ba bu leen leen sànk bu bu leen leen neenal sax wuttu leen leen xaafidu ala salawaati salaati lu wuste wa te mu daytal hmm. xuduudan hmm. ay dayo hmm. wala xuduudan ay daytal fala taataduuhaa bu leen leen jàggi mu am ay limite yum leen jox bu leen traversé limite yooyu dem ca yee ca gannaaw alxaddu cosaanam mooy tere almanu moo tax Euh, frontière hmm. ñu di ko tuddee alxadd wala alxudud li hmm. dox sa diggante kër ak këru jàmbur hmm. looloy xaddu ba li dox diggante sa réew ak réewu jàmbur looloy xaddu ba am na ñu ne luñ namm ci alxudud mooy xududul waajibaati ak xududul muharramaati ndax alwaajibaatu ay xuduut la yoo xam ne wareesu leen a jàggi almuharramaatu ay xuduut la yoo xam ne wareesu leen a jege hmm? waajibaat yi ay daytal la yoo xam ne yàlla daytal na leen waruñ leen a jéggi julli tisbaar julli tisbaar ñeenti ràkka la ci yàlla farataal ndax nit mën naa jéggi ñeent def juróom déedéet yu xaraam yàlla ne bu leen leen jege ndax nit mën naa jéggi waxi yàlla jege yu xaraam yi déedéet am ñu ne liñ namm ci xuduud yi mooy al uqubaatu sharciyatu mooy mbugal yi nga xam ni sharia yoonal na leen mm-hmm. niki mbugalam zina njaaloo mm-hmm. ni ki mbugalam eh, sàcc mm-hmm. di dog loxo yu mel noonu mm-hmm. Hmm? waaye daal mm. bu ñu xoolee ci alxuraan mm. danañ gis ne xuduud yi mën nañoo dellu ci yàlla mm. eh, waral ak ci yim xaraamal hmm? bu ko defee buñ ne lii waajib la ñu ne bu ko jéggi mooy laa taxtad laa taxtaduha hmm. bu ko jéggi hmm. yàlla mu ne tilka xududullahi hmm. fala taxtaduha yooyu ñooy xududu yàlla yi bu leen leen jéggi bu dee yu xaraam mu ne tilka xududullaahi yooyooyu dayo yàlla yi fala taqrabuha bu leen leen jege Hmm. booba ma ngay tudd lekk ak naan ci ku woor hmm. ne yooyu de yàlla yi leen leen jege hmm. mooy yàlla tere buñ leen jege wala taqrabu zina yàlla digle buñ leen jéggi jëm ci la mu digle du noonu wa xadda xuduudan fala tactaduuha wa xarama tam xaraamal asiyaa ay mbir dégg nga ay doo wax asiyaa an shay an ngay wax waaye doo wax an asiyaa a ngay wax hmm? waawow eh, fala tantahikuha hmm? asiyaa a fala tantahikuha dañuy nasab Mm-hmm. hamza gi mm-hmm. waaye doo am tanwin mm-hmm. ndax alifu tanis almamdudati gi ci ne fala tantahikuha bu leen leen xotti waaye yàlla xaraamal na ay yëf bu leen xotti xormaay yàlla yi bu xotti yëf yooyu dégg nga bu leen leen def mooy fala tantahikuha ni ki xas gor ki naan sàngara ni njaaloo wal iyaadu billah wa sakata tam noppi an ashyaa ci ay mbir lu tax rahmatan lakum yërëm leen rek waaye xeyra nisyaanin duutug fàtte de am na yoo xam ne yàlla tuddut ci ñoom xaraam tuddut ci ñoom wujjóob duhut ne fa leen fàtte waaye yërmandeem ju bëree tax loolu nag su amee falaa tabxasu anha bu leen leen gëstu wala tabxasu bu leen gëstu hmm. anaa walis yooyee hmm. ndax yàlla du fatte hmm. wa ma kaana rabbuka nasiya laa yadillu rabbi wala yansa yàlla du fàtte ñun koy ñooy fàtte wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasi bu leen leen gëstu xadis ji danañ ci jànge ay mbir xadis ji ko ko solo daaru qat da ad daaru qatani wala moom mooy euh, euh, imaam muslim imaam euh, imaam ibn imaam allahuma salli ala nabi annawawi nee na xadisun xasanun mhm. rawahu daaru qutniyu wa gayruhu mhm. ak kudul moom mhm. ni ki imaam xaakim ni ki bayhaqi ñoom ñëpp soloon nañ xadis ji ridwanullahi tabaraka wa taala alayhim danañ ci jàngee moom xadis ji ne yàlla mbir mi moom dong la ñeel sañ farataal yàlla rekk ko am sañ-sañu xaraamal ci loxoom kott la ne kenn mënta waral kenn mënta xaraamal kenn mënta daganal moo tax mu ne inna allaha farada dégg nga faraida moom rekk mën a farataal moo tax mu ne wa xarama ashyaa moom rekk mën a xaraamal fard ak waajib ndax benn la bu fekkee dañ ne hada fardun ak hada waajibun ndax benn la borom xam-xam yi dañ ci wutee war a bàyyi gi nag moom ñaar yëpp lañ war a maanaam war a def gi mag ñaar yëpp lañ war a def waaye degré war gi nag am na ñu ne farata mooy loo xam ne dafa am dalil qat'i yi dalil boo xam ne dalil bu leer naññ la ñu dogu ca ñu ne waajib nag mooy loo xam ne dalilam tegtalam nii des koo jortu rek dalil dalil nii la am ñu ne déedéet farata mooy lu sax mm-hmm. ah, saxe ci alquran mooy lu dikk ci alquran mm-hmm. ñu ne waajib mooy lu saxee ci sunna mm-hmm. am ñu ne déedéet farata ak waajib benn lañ dégg am na sax ñu ne farata mooy loo xam ne mm. dégg nga mm. dalilam mm. dafa nekk ci Euh, dafa nekk alquran mm. wala muy hadis mutawatir mm. te mooy dalil qati rek mm. waajib mooy loo xam ne dalilam hadis gayru mutawatir la mooy ay hadis min a ahad loolu mooy dalil zanni rek waaye ñu ñu ñu jumhur ne farata ak waajib nag benn lañu mm-hmm. tur yee wuute waaye firim yi benn lañu mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. jur wute waaye hmm. eh, dégg nga hmm. eh, benn lañu hmm. ala kulli xaalin diine lislaam dafay séddali ko jëm ci yuñ farataal ak yuñ xaraamal danañ ko jàngee ci hadis yi danañ ci jàngee ne yi yàlla farataal jàmm bu ne war naa fexe ba sàmm leen ndax ba mu ne bu leen leen sànk rek hmm. lañ ciy déggee ne hmm. war nañ leen a fonk hmm. sàmm leen fala tudayyuha a ah, xaalis baa ngi noonu nag fexeel ba bu mu sànku loolu mooy na ko wëttu kon bu ne yàlla farataal na ay farata bu leen leen sànk mooy na ngeen leen wëttu bu dee buñ ne yàlla dayal na ay dayoo xadd bi nga xam ne hmm. moo nekk ci diggante xaraam hmm. ak waajib hmm. mu ngi mel ni mooy frontière bi tàqale diggante suufi nit ñi jiitu woon na ne an alxalaala alxalaalu bayinun wal xaraamu bayinun ci xadisu Nu'man ibn Bashir wa baynahuma umurun mushtabihaatu ñu jàngee ci xadis ji ne fi ñu yàlla hemloo xaraam nañu romb fa mm-hmm. moo tax mu ne fala taataduha mm-hmm. mm-hmm. fala taataduha yàlla nag bi muy uh, wax yi naan tilka xududullahi fala taataduha booba ma ngay wax ci alquran ci wàllu sëy ak wàllu fase nga gis ni yàlla fonkee diggante yooyu ak war ma yee ca war mm-hmm. moo tax muy wax di toujours di baamtu mm-hmm. tilka xuduudullaahi fala taataduha mm-hmm. wa man yataadda xuduudallahi fa ulaika hum zalimun naka noonu ci wàllu gëtën mooy alxadd yi xam ci sharia muy punishments yi nga xam ne ñoo war a am su fekkee ne ak moy gu xadd uh, war am na wareesuta jéggi xadd ya nga xam ne ñoom la yàlla def hmm. ñoom la yàlla dogal ñoom la yàlla waral hmm. Hmm. koo xam ne dafa njaaloo masalan te fekk sangewut kooku dañ koy dóor téeméeri ya kenn warut wax ne nañ ko dóor téeméer ak juróom fukk ndax nit ñi boo leen yokk yokkalul téeméer daanaka miin nañ ko ki wax loolu lan lañ koy wax hmm. dañ koy wax ne ko yow yaa gën a xam wala yàlla gën a xam hmm. su fekkee ne yàlla téeméeri yar la farataal hmm. kenn warta fàtlu ak fàtloom ba yokku ngir jàpp ne loolu mooy gën a jëriñ li yàlla wax dëgg-dëgg mooy gën a jëriñ comme nag da yi dañ leen a limité ndax ki naan sàngara hmm. pénalité wala mbugal mi ñuy teg ci kawam hmm. ndax xadd lañ koy firee wala lañ koy firee xadd hmm. ndax ki naan sàngara ñëw na ne dóor nañ ko lii ñëw na ne dóor nañ ko laa kon am na ñoo xam ne uqubatu rek lañ koy e, firee wala ak yar waaye duñ ko firee xadd ndax ñu ne Seydina Omar ba mu diisoog saxaaba yi Abdurahman ibn Awf hmm. daf ne ko axaful xudud yaa amira al muminin axaful xududi thamanuuna hmm. yow buuru jullit yi li gën a woyof hmm. gën a tuuti ci gëtën mooy juróom ñetti fukki yar te mooy euh, xaddu koo xam ne dafa xas dafa xas fajliduhum zamanina mhm. jëldatan mhm. loolu la yàlla wax mhm. te ki naan sàngara gis nañ ne ñeent fukki yar dóor nañ ko ko hmm? am ñoo xam ne wax nañ juróom-ñett fukk am ñu wax leneen am ñu wax leneen te comme ñeent fukk moo gën a tuuti juróom-ñett fukk te Seydina Abdurahmaan ibn Awf ne juróom-ñett fukk moo gën a tuuti ci xadd ñu ne kon la def ku naan sàngara yar lañ koy tuddee ak ak mbugal mm-hmm. waaye duñ ko tuddee xadd ndax xadd yi yàlla fa leen limité mm-hmm. du ñu yokk du ñu wàññeeku mm-hmm. yokk wàññeeku am na lu ñu wax loole ñu jàngee ci xadis jiit ne mm. sama borom tabaraka wa taala mm. yërmandeem ju bari ji mm. moo tax mu nopp ci ay yëf farataat leen waxut ci ñoom dara hmm. xaraamalut leen hmm. ñu ne lii nag hmm. ci yudul jaamu yàlla yi la ci yi nga xam ne jëmul ci ay jaamu lépp loo xam ne lekk la yàlla waxut ne xaraam na dañ ci déggee rek ne feeg loru rek dagan na waaye bu dee ci jaamu yàlla yi nag kenn mënta sos jaamu yàlla nu mu ko neexee rek dañ ci eh, déglu eh, yàlla ko yonentam xudu anni manasikakum yàlla it yim xaraamal yonente sallallahu alayhi wa sallam leeral na ne leeral na ne deesa deesa deesa war a sori yooyu wareesu leen jege ni ñuy xamee ne mbir xaram na nag benn ñu ne naha nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. tere mm-hmm. wala mu leeralu xaraam ge mm. wala ñu tudd ne nangam ku ko def mm. danañ la ci mbugal lee nangam ak nangam mm. ñu ne côté yooyu ak yu mel noonu ci la ñuy xamee mbir moo xam ne mbir mu xaraam la mbir moo xam ne mbir mu xaraam la bu ko defee yooyu ñu bàyyi ci bàyyi ci xel mm-hmm. naa nabiyu ñu mm. xam ne am na ñu ne nag mm. léeg-léeg mu amee maanaam karahiyatu mm-hmm. baatu nahyu mm-hmm. yooyu yëpp danañ ko jàng ci euh, xam-xami usulil fiq danañ xam-xami usulil fiq léegi nag wax ji wax ne mm. yàlla am na yum noppi waxu ca dara bu leen leen gëstu borom xam-xam yi am nañu wuute mm-hmm. ndax loolu dafa nekk xaas fi ahdi risalati mm-hmm. ndax loolu ci jamono yi jamono yonantu gi rek lañ lañ ko tere mm-hmm. ndax jamono yooyu risalatu gi wax yu gaa ngi wàcc nit mën naa laaj dara loo xam ne xaraamu luñ ko woon ñu xaraamal ko ngir eh, laaj gam ko laaj wala mu laaj loo xam ne warutoon ñu waral ko ngir moom ni ki aqra ibn xaabis mm. ba mu laajee yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. bi yonantu ne inna allaha farada alaykum alxajja mm. fa xujju yàlla xaramal farataal na ci yéen xaj na ngeen xaj mm. aqra ne yow yonantu ndax ci at mu ne la yonantu noppi bal aqra wax ko ñetti yoon mu ne law qultu naam la wajabat mm-hmm. su ma waxoon waaw mm. rekk mu war mm-hmm. te wa du ngeen ko mën xaji mm-hmm. xat mu jot mu daldi di ne alxajju marra fa ma zaada fa huwa tatawwa aju korata benn yoon la lu ca dooleeku ak coobarewu la genre laaj yooyu mm. la ñuy bañ wax bokk na ci ñi gën a rëy tooñ ci laaj loo xam ne xaraamutoon ñu xaraamal ko ngir laajam mm-hmm. wala lu warutoon ñu waral ko ngir laajam mm-hmm. ñu ne kon lii ci jamono yonantu dañ mm-hmm. ko tere woon ndax boobu ci la waral ak xaraamal di am gannaaw yonantu nag sallallahu alayhi euh, jaam bi mën naa laaj ndax kuy xaraamal ak kuy waral neexatut fi leeral li xaram ak li war rek moo fi ne Hmm? am na ñu ne déedéet ba ci gannaaw risaalatu gi sax hmm? ndax euh, tere gi hmm? mooy rek fexe ba nit ki du nekk di gëstu yoo xam ne euh, concerné wut ko lu dul nag ki nga xam ne dafay gëstu mu nekk koo xam ne loolu mooy euh, domaine am mm-hmm. ni ki ab étudiant boo xam ne mu ngi def ab recherche mm-hmm. ci nàngam mm-hmm. kooku muy continuer di laajte ngir gëstum matale wala chercheur boo xam ne mi ngi gëstu kooku waaye nit koo xam ne amul soxla ci yooyu di laajte rek ngir laajte yooyu dafa nekk loo xam ne des koo des koo tere nekk loo xam ne des koo tere ñu jàngee ci hadis ji réyug yërmande yàlla ñeel jaam ñi mm-hmm. ndax yi mu noppi noonu yëpp mm-hmm. waxu ci dara mm-hmm. eh, yërmandeem la ndax bu ko neexoon yooyu yëpp mu waral leen waaye yooyu yëpp mu xaraamal leen boo xoolee yim daganal ñoo ëpp fuuf yim xaraamal yi mu dégg nga waral lu tuuti la boo ko seetee nga comparé ko yi mu waralut lu tuuti la sant tere ñu lu tuuti ci des yëpp mu hmm. bàyyi ñu hmm. ak suñ bopp bu ñu neexee def hmm. bu ñu neexee ba waaye duwul na dafa fàtte déedéet dafa bëri yërmande rek waaw wa rahmati wasiat kulla cheyin yërmandeem dégg nga dafa matale lépp lëf lépp lëf bañ na ko ba dafa farataal ci boppam sax yërmande te yërmandeem gu yaatu gi kat du dara hmm. boo ko dendalee yërmande gam dencal jaamam yu baax yi hmm. yàlla nañ ci bokk yowmal qiyaamati wax nañ ne bu dee yërmande ji téeméer la hmm. juróom-ñeent fukki ak juróom-ñeent yëpp mi ngi ñu ko dencal ba ëllëg benn bi rek mooy yërmande yu bëri yi nga gis fii ba nga xam ne ci la fas di yërëmee doomam ganaar di ci yërëmee cuuja waaye duul ne fa fàtte de ndax fàtte mm. jomb na ci yàlla tabaraka wa taala mm-hmm. wa ma kaana rabbuka nasiyan wax na ko ci suratu mariama ne mm. yàlla sa borom du fàtte de mm. mm-hmm. yonent yàlla Muusa ba ko firawna laajee ma baalul quruni luulee fa ma baalul quruni luulee qaala ilmuha inda rabbi mm-hmm. fi kitab laa yadillu rabbi wala yansa yàlla du réer du fàtte suñu waxee ne waaw yàlla du réer du fàtte te moo wax ci alxuraan ne nasullaha mm-hmm. yéeféer yi fàtte nañ yàlla fa nasiyahum mm-hmm. mu fàtte leen wala naafeq fàtte nañ yàlla fa nasiyahum mm-hmm. mu fàtte leen saxalal na boppam fàtte fii ñu ne déedéet fàtte gi fa nisiyaanu fii du firi fàtte bàyyi lay firi mooy eh, fàtte nañ yàlla ku fàtte lu muy def boo dara boo ko fàttee soo fàttee naan ba nga naan nga soo fàttee dem ba nga dem nga li fàtte di jur mooy ba moom lañ def moo tax yàlla it ba leen waaye fàttewut leen hmm? li fàtte di jur mooy ba moo tax yàlla ba leen fàttewut leen wax ci beneen aaya ya fàtt nañ yàlla fa ansaahum anfusahum yàlla moom soo ko fàttee dafay fexe ba nga fàtte sa bopp dootoo nekkati mukk ci loo xam ne priorité waaw da nga seet nit ñi suba ba ngoon jot li ñuy def yëpp booy mm. xool yi leen ci amal njëriñ ci àdduna mm. ak leen ci amal njëriñ ci àllaaxira lu tuuti lay doon mm-hmm. te duñ ko yëg mm-hmm. waaw ñu ngi ci foy ñu ci vidéo yi mm-hmm. ñu ci dem ak a ñëw ñu ci wax téléphone boo xoolee la ci ëpp mm. du leen jëriñ ci seen àdduna du leen jëriñ ci seen àllaaxira ndax fàtte nañ yàlla yàlla fàtteloo leen seen bopp fàtteloo leen seen priorité waaye yàlla moom fàtte jomb na ci moom mm-hmm. subhaanahu mm-hmm. wa taala mm-hmm. nee nañu bépp euh, qaacida ci alquran am na euh, istisna am na sette am na exception bépp règle ci alquran am na sette am na exception ba mu des inna allaha bi kulli cheyin alim wallahu bi kulli alim yàlla lu ne la xam amu dara lum réere laa yadillu rabbi wala yansa Hmm? Mm-hmm. boo xoolee ni hadis ji gàttee mm. ak nim ko defee ak taqsim mm. ci ngay gis xusnu bayaani sayidina nabiyi sallallahu alayhi wa sallam rafetulu Mm-hmm. leeralam arrahmaanu mm-hmm. allama alqur'aana xalaqa mm-hmm. al insaana allamahu lbayaan bayaan kon yonentu dëgg dëgg moom la ko yàlla xamal ndax linsaanul kaamil moom la moo tax nga gis taqsim gu rafet gi mu séddalee yëf yi ci ñetti euh, dagg-dagg yàlla farataal na ay farata bu leen leen sànq mu daytal ay dayo mm. bu leen leen jéggi mm-hmm. mu xaraamal ay yëf mm. bu leen leen xotti mm-hmm. mu noppi ci ay mbir mm. yërëm leen a tax mm-hmm. ay duut fàtte bu leen leen gëstu nañ yàlla defal dégg defal ñu topp ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaarihi al-azim